ndax jàpp nga ne euh, mbir yi ni muy présenté woon yi euh, mën na écarter euh, carrément une troisième candidature du président Macky Sall en perspective de 2024 wala local yi ñu jëm en 2022 mën na nekk benn baromètre pour moom pour mu xoolaat ndax jekk na wala boo gis nga maa ngi dégg sax bërki dem ñuy titre et c'est malheureux que ni première dame nekkul. pour le. pour le pour dans une dynamique de. voilà troisième mandat troisième mandat Moustapha moo ko waxoon mais après weddiwaat na ne wax. xam nga dafa am loo xamante ni bu xasee ba am ci réew man daf may tiital parce que bu demee ba suñuy ay institution ñu am suñu constitution constitution bi li mu wax kenn waxatu ci léegi ñuy wax ci waxu koo xamante ni nee nañ première dame la première dame lan la représente ci Sénégal kaddu président lu mu fort fort fort mënul taxaw ci kaw constitution kenn mun mënta am lu wees ñaari mandat donc man troisième mandat dama koy écarter du président Macky Sall mooy wax ba ma xalaatal ko pour troisième mandat du nit mooy taxaw di naan Macky war na mun a def troisième mandat ba ma jox ko crédit parce que aussi bu ñu demee ba ñu yab ñu ba yab suñu constitution bi nga xamante ni ci président moom mooy tax mu doon président de la république constitution boobu bu amatul valeur ba ñuy jël parole ay nit di ko jël di ko teg ci kaw constitution boobu mais dafay poser problème ñun ñoo woon refuser ce débat. ñu ni lii moom xel xalaatu ko parce que nee nañu ni président bi ñaari mandat lay def def na ñaari mandat yi jeex na débat du ci am kenn du ko jéem a posé bu demee élection locale yi te effectivement bu demee élection day day perte man lu ma gis ci ay sénégalais gis ko aussi ci réalité yi nga xamante ne dañ koy dund sur le terrain bu demee élection locale am na forte chance perte localité yu gën a. malgré benn bokk yaakaar nu mu koy renforcer yëpp ñoom Idrissa sekk ñëw ñeneen ak ñeneen ñëw réew mi ñëw et euh, taxawaay bi mu am jàpp na sax quatre vingt cinq pour cent de l' électorat moom moo ko yor loolu yëpp nga ne local yi di dem. dañuy ah, dañuy kii rek dañuy dañuy dalal seen xel rek mais moom xam na ni en réalité bu soxla woon euh, bu bu bu amoon euh, cette légitimité du fexe di jéem boobu ba tey di wut ay nit di leen xëcc di leen dugal. te aussi ñi ngay wax noonu ñëpp dañu nekkoon ci ci ci ci ci benn chute boo xamante ni euh, pour ñu jugaat problème la si ñoom. mais Idrissa Seck moom moo jël. deuxième coalition si waaw waaw coalition. Idy 2019 xam nga ba muy dem moom kese moo dem. waaw coalition malheureusement Idy 2019 dafa jël deuxième. si présidentielle xam nga bi tey jii boo jëlee coalition bi ñu àndoon Idrissa Seck. Euh, waaw ñu ñu ngi si ñëpp a ngi ci mm-hmm. moom bii dem moom kese moom mooy dem partem sax ku mel ni Déthié Fall numéro 2 àndul ak moom. Mm-hmm. te aussi kooku moom moo taxoon ñi naan réew mi boo xamee réew mi rek xam kan moo doon def activité politique yeeg yooyu yëpp nga perdre euh, Déthié Fall perdre Thierno Bocoum perdre ñeneen ak ñeneen ay responsable Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñoo xamante ni dañ la doon dimbali mais ñooñu boo leen perdre yow boo demee mais am na une vague bu ñëw aussi ah ah non ñooñu xam nga xam nga du leen du ma leen soofantal de mais dama jàpp nii rek li ñu perte moo ëpp lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jël beneen mbir mi aussi dafa am lu commencé di juddu cest à tey kenn mënul weddi ni am na beneen mbir boo xamante ni commencé na judd ci le wàllu sur le plan politique mooy réalité bii fi jotu judd jamonoy 2009. taxawu Sénégal moom moo doon fal ay maire mais 2024 bii ñu jëm wala 2022 bii ñu jëm war a def ay élections mais dalay leer ni Pastef mooy taxaw mooy mooy mooy fal ay maire ni Idi Khalifa Sall amee woon capacité bu la bëggee def maire jàppale la nga doon maire. jamonoy 2022 bii ñu jëm. taxawu Dakar en 2014. 2000 2014 2009 2009 sax. waaw ba 2009 ba 2014 2014 aussi même chose moom moo tax ba ñu bëri falu. 2022 bii nga nekk ci Pastef wala nga nekk ci coalition ak Pastef am nga forte chance pour nga gagner sa localité. moo tax mën la dafa am beneen réalité bu juddu boo xamante ni bokkul woon ci réalité yenn yi te aussi loolu nañ ko jël en compte gis nga ñoom. li ñu xalaat lépp bu ñu demee ci élection parce que man gëm naa ne bu ñu bu leen leeroon ni bu ñu demoon ci élection dañuy gañ du ñu def ay découpage administratif mhm. du ñu commencé di salfaañi li nga xamante mooy carte électorale bi du ñu commencé dugg ci yenn mbir yoo xamante ni naan dañuy fexe di jënd ay nit ak yenn mbir yoo xamante ni rafetul xam nañu ni légitimité populaire bi nga xamante ni waroon nañ ko mën a am amuñu ko nekk nga fi 9 ans mais 9 ans yooyu lu ne nga jéem ko xoolal rek ce qui s'est passé à euh, fii au niveau de Parcelles Assainies lan lañ wax Moussa si dañ dem ba obligé ko dem jëli ji ko parce que mënuñu ko gagné te pourtant ñaata milliards nañ fa def yow mënoo gagné ba dem jëli ji maire bi teg fa xamuñu ni maire boobu noonu du maire bi en fait moom mooy doole ji mais doole ji askan bi la. yoon boo xamante ne orientation bu mu jëloon la orientation boobu tant que mi ngi koy jël askan bi dañuy ànd ak moom mais askan bi est-ce que dinañ nangu ànd ak moom muy dem di jébalu ci président Macky Sall donc nit ñi mën nañ la topp. parce que am nga benn vision boo xamante ne vision bu leer la si ñoom vision boobu ñoom moom la ñu gis ni mooy vision bi baax boo xamante ne wax nga ko mën a jël mais yow boo juumee da yaakaar nit ñi dañ la topp parce que sa mbubb bu rafet non topp ñu la parce que sa mbubb bu rafet wala dañ la dañ la gis parce que da nga éloquent wala da yooyu noonu dañ lay topp parce que am nañu vision boo xamante ni gis nañu ni yaa ngi ci vision boobu mais vision boobu bis boo ko wàccee nit ñi wan la ginnaaw te Macky Sall looloo ko dal mi ngi dem di jëli ji ay nit nit ñooñu dinañ ñëw mais du ñu ànd ak kenn ku dul peut-être seen njaboot d' accord euh, coow li judd fii euh, dakaar par exemple imam ratib bu grande mosquée bu Dakar euh, loolu sax li mu wax sax tamit Abdoulaye Makhtar Diop nekk grand seigneur de Dakar aussi loolu la gëm que lébu yi danoo war a jàppale ab lébu mu falu jiite mairie bu Ndakaaru loolu ndax jàpp nga ne c' est une requête légitime. ah loolu de wax dëgg yàlla du ma ko du xam nga sa mbokk lébu yi dañoo xaw a tey waxaam nañ nekk saxul. <laughs> mais en fait euh, plus sérieusement je crois que ni ay dérives la yoo xamante ne war nañ ko mën a éviter cest dire bu ñuy fal nit warul doon parce que ñoo bokk diine warul doon parce que ñoo bokku quartier warul doon parce que ñoo bokk xeet dañ ko war a teg ci compétence parce que aussi bu nekkee dañuy jël benn nit parce que jàpp nañ ni pël la mu gérer mais est-ce que kooku li muy gérer bu amul xarañte bi intérêt pël yi dina ko sàmm est-ce que tey jii bu ñu jëlee Pape Makhtar bi ñu jàppee ni lébu la ñu dénk ko Ndakaaru est-ce que moom bu amul xarañte bi intérêt Ndakaaru dina ko sàmm donc je crois que ni bu ñuy dem ba ci ay élections nañu jël lépp li nga xamante ni ay mbir yu subjective la ñu teg ko de côté dem ci li nga xamante ni mooy objectivité ñu ne bu ñuy tànn comme ni ñuy tànnee imam ratib xam nga moom fàlluñu ko parce que dafa doon lépp. dañ lay fal parce que da ngay jàng ëpp fa xam-xam. maanaam yi daje na si yow. critères yu objectif ñu jël ko teg ko bu ñu jëlee lool ñu teg ko mais moom moo ëpp sax njëriñ ci ñi nga xamante ni dañu nekk ay lébu parce que au moins kooku da di leer ni du jël seen suuf di ko jaay. dina dafay investissement yoo xamante ni yow mi nga xamante ni lébu nga danga dëkk ci ndakaaru sa kër gi valeur am dina gën a yokk parce que au moins dina ko valoriser mais loolu tey ji intérêt ñi nga xamante ni mooy ñu fi dëkk la donc je crois que nañu jël compétence yi teg ko teg ay critère yoo xamante ni objectif la te ñu jël li nga xamante ni mooy toute subjectivité ñu teg ko da parce que subjectivité moo ñu indi problème yi ne cest à dañuy fal nit parce que ñoo bokk sëriñ parce que ñoo bokk koñ wala parce que ñoo bokk sant wala ñoo bokk loolu te loolu vraiment dafa nekk ay mbir yoo xamante ni du avancer Sénégal. sànq yaa ngi koy junj nga ne Pastef moom mooy fal yi si ni nga ko waxee entre guillemets euh, mais si si ban baromètre ngay jafandu pour loolu euh, bu nu gisee euh, Pastef candidat bi mu tegoon ak tam coalition jot na Sonko président bi mu tegoon en 2019 troisième la jël naam législative yi weesu en 2017. plus forest la woon même bu nekkee am na évolution bu am solo bu ci am mais fu toll nii ban baromètre moom nga teg pour jàpp ne nii taxawu Dakar meloon en 2014 meloon ko en 2009 ci beneen anam tey jii nii moom la Pastef mel. waaw xam nga xam nga xam nga politique. Euh, dafa am dañuy naan ay du wasin ak yooyu. day du biir bi day xëy wasin xëy wasin loolu ay caaxaan gis nga politique dafa am fooy toll da nekk ci phase boo xamante ne phase ascendante lay nekk. ku la jàppale bu la jàppalewul da ngay yegg naan bëri ko si mbaxtal boobu xebu dem boobu jamono jii ñuy wax boo xoolee manifestation yii di am Sénégal nga xool parti bu gën a organisé wu nga xool aussi ñi nga xamante ni am nañu pas-pas ci seeni parti bay fan yee passé la lañ doon def ci bitim réew collecte de fonds ni dañuy xool ñoom seen parti bi nan la ñuy fexe ba financer seen ay seen ay activités mais loolu yëpp tey jii ay baromètre la cest dire nit ki bu demee bay jël alalam di ko def ci partem c'est parce que gëm na ko nit ki bu demee bay organiser de manière périodique et régulière ay séances yoo xamante ni ay réunion la dem di waxtaan ak askan bi nga leen di gis chaque fois ñoom ñu nekk ci action nga leen di gis aussi ñu am cette légitimité populaire boo gisee Ousmane Sonko bu génnee lu muy drainer ci monde xoolal rek déjà parfois boo duggee ci terrain bi bu manifestation amee leader bu ñëw. liy yëngu ci moom ak moom bu ñëwee du yam yàlla mooy def loolu nu mu ko jagleeloon président Abdoulaye Wade jagleeloon ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen jamono jii nii force bi moom moo koy yore moom moo koy incarné parce que dafa am aussi peut-être loo xamante ni dafa nekk ci moom mooy renouveau peut-être walla leen loo xamante ni ndaw la te nit ñi gis nañu ni alternative war na mën a am moo tax ma ni élection yii ñuy jëm Pastef dina ci jouer un rôle déterminant parce que ñoom si seen organisation pare nañu. ay ndaw nañu mais aussi xam nga jëlugoo benn mbir géré goo benn mbir nit ñi dañuy xaw a am genre présomption de bonne foi. Mhm. dañuy naan ñii de comme joxaguñ leen dénk guñu dénk nañu ñii ñëpp mais kii dañ koy dénk. te buñ ko dénkee discours bi ñuy tenir discours anti système beeg. anti système beeg ak rupture yeeg yooyu yëpp te nit ñi dañu soxla loolu en fait c'est-à-dire nit ñi damay dégg le président Moustapha Diakhaté naan Sénégal du ñu fer ci nax mais nit ñi dañu commencé fer ci nax. dañu commencé di bëgg vision boo xamante ne bu alternative la bu crédible bu leer te bu ñu gisee ñoo xamante dañ koy porter mais man damay gëm ni que ni vraiment ñooñu képp ki nga xamante ni da bëgg doon maire nga boote seen ginnaaw daf la koy faciliter. Barthélémy Diaz ànd ak Pastef mën na koo faciliter ambition bi mu am si Dakar. Barthélémy Diaz bu àndee Pastef waxuma la sax faciliter mais da koy faciliter sax yeneen yoon parce que en fait mooy li ma la wax léegi gis nga nit ñi. man damay nekk sur terrain comme ni nga koy nekkee Mouhamed bu ñuy dem ci manifestation yi ngay gis ku mel ni Barthélémy Dias ni ko nit ñi di bëggee ngay gis ku mel ni euh, Ousmane Sonko ngay gis ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni dañu am si discours boo xamante ni dafa nekk euh, discours de rupture musuñu ko dégg wala bu ñu ko doon dégg aussi du bëri mais ñooñu sénégalais yi benn benn de bu ñu leen di jox mais duñ ko jox koo xamante ni saa waay nekkoon na ci régime bi nekk ci régime bi nekkaat ci régime bi donc tey Pastef bu àndee ak Barthélémy Diaz mais évidemment que Barthélémy Diaz pour mu accéder pour mu pour mu pour mu. Euh, voilà nekk maire de Dakar dafay yomb ci moom man je ko que ni de delà de moom sax képp ki nga xamante ni tey jii ànd nga ak Pastef. pour nga mën a doon maire de Dakar wala maire de feneen ak feneen ak feneen dina yomb ci yow. mais parce que fu mu toll nii leader dafa nekk sous contrôle judiciaire voyager sax fu mu toll nii génn si réew mi lu ko jafe la est-ce que loolu tam mënul nekk gàllankoor. loolu tamit doon beneen point euh, point point euh, beneen beneen force boo xamante ni aussi buñ ko négligé bërki démb rek euh, ba ñuy dem ci élection législative lan lañ defoon xalifa Sall teg ko lan te de liste parce que xam nañu ni. Sénégalais naturellement dafa nekk koo xamante ni bëggul injustice. donc tey am na aspect boobu nga boole ci aussi aspect wu kii am na ñu bëri dañuy jàpp ni dañ koo tooñ. mais loolu rek dafay gën a facilité te aussi dafa lay gën a yokk ba yow mi nga xamante ni euh, Karim Wade aussi gis nañu ni bon il a fallu que mu dugg ci kaso bi ñu tëj ko si la doogay am euh, nit ñi nga xamante ni aussi sympathisants yi gën a yokk nit ñi commencé kay kaasal ak leen ak leneen ak jamono jooju noonu bu élection amoon mais daf ci am ay ay voix yu yu am solo la preuve ba ñuy dem ci seen élection euh, je crois locale 2014 yi PDS amoon na ay xamante ni yu baax la yaakaar naa après Macky Sall ñoom ñoo si te ñoo ngi jóge woon ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy ci nguur gi xam nga loolu sax c'était inédit nga jóge ci pouvoir bi dellu si waat ci élection am yenn som cest à moo tax man la gis nga am na yenn mbir yoo xamante ne bu dalee sa kaw wala dal sa kaw leader daf lay jox force boo xamante ni nit ñi dañuy ànd ak yow parce que dañuy jàpp ni que yow da nekk victime victime nga nat wala doo victime loolu beneen débat la mais nit ñi loolu la am ci yow comme appréciation te loolu boo ci surfer da ngay gagner pour yow Sall a été victime pour yow pour yow coow coow liy weesu si moom yàqalu ko dara au contraire daf koo yokk. da koy yokk mais président Macky Sall ba mu demee ba am problème ak waa PDS ko nit ñi fale ñu bëri. mais du benn Pape Matar. waaw non non président kenn jiiñu ko duñ jiiñ par exemple Ousmane Sonko. waaw xam nga comme non xam nga xam nga tuuma la rek. te aussi bon ah, voilà ba léegi jiiñ. waaw xam nga waaw voilà xam nga te yaakaaruma fii léegi élection yi ñu ñu ñu ñu ñu évacuer dossier bi gëmuma ko. donc situation boobu noonu donc gëmuma jamono jooju ñuy demee ci élection euh, ñu jàpp ci nit wala ñu bañ si jàpp nit mais li ma gëm mooy président Macky Sall ba muy génn ci PDS dafa taxaw victimiser wu ni man de dama doon topp doomu président de la république ñu ni ma doo ko fi toppee commencé may buntu xatal ma démissionné bàyyi leen ak seeni ay mbir nit ñi ni ah d'accord comme dañuy jaay doole parce que ñoom ñoo fi ne. ñoom ñooy yore réew mi ñoom ñoo yore pouvoir mais ñun aussi ñun ñoo yore suñuy kart dañ ko voté élection yi ñu si tegoon mais dañ ko fal maire Fatick laataa mii doon président de la Sénégal may ko ay député donc je crois que ni loolu dafa nekk loo xamante ni euh, dañ ko yàgg di dund en fait Abdoulaye Wade aussi bénéficié wu na si plusieurs fois bu ko Abdou Diouf téye sonal bu demee élection mais sénégalais yi nga gis sympathisants yi di gën a yokk nga gis aussi ñi koy voté di gën a yokk donc je crois période bii nii ak contexte bii bu changé wul. bu ñu demee ci élection Pastef am na forte chance nekk ñoo xamante ni ñoom ñooy doon ay faiseurs de roi